tey damay dugg ci sama yaay ci mbir damay dugg ak sama yaay si li nga xamante ne ni mooy làmb ji yaay ñu gis ne instant yi eh, corona bi tenk na lépp ba làmb ji eh, amatul eh, sama yaay ñu gisoon ko si làmb ji si lay gën a ci lay gën maanaam ci la liggéeyam di gën a dox daal est-ce que suñu yaay mën nañoo wax ci loolu. Mm, làmb ji taxul sama liggéey gën a dox dañu ne xëy na làmb ji lañ ma gisee rek làmb ji gat man mii Selbé Ndom maa jëndee làmb ji. Mm-hmm. ñu xeex ma bañ ma commencé xeex ci la làmb ji commencé am problème parce que man xorom laa ci làmb ji wax bi ma ciy wax wàññiwu leen dara ndax du man rek may wax làmb ji mënoon nañu ñu laaj yow lan mooy sa xalaat ci bëri eh, Balla Gaye ak Eumeu Sène wala bëri Balla Gaye ak keneen wala keneen Modou Lo wala ak ak keneen yow da ngay wax sa sa avis man lu ma sunu borom may la rek. nekkul loo xam ne dama ko jéggaani fenn dama ko judduwaale suñu borom may ma ko xëy na yàlla moo na woon Selbé Ndom dina dugg ci affaire làmb bi mais dañ ma ci xeex lu nekk dañ ma ci wax lu loo xalaat lu bon rek wax nañ ma ko ci nga di ma dëddaleeg ay mbër te man mbër yooyu man yaakaaruma leen man yàlla laa yaakaar yaakaaruma kenn ku du yàlla yonent bi waaw mbër yooyu nga xam ne dama doon dem seen kër dama ko seqoon ak ñoom bi ma gisee changement ay seytaane yoo xam ne gëmuñu yàlla dañuy gëm gëmuñu lu yàlla ndax ku gëm yàlla dëgg doo fenal nit ku gëm yàlla dëgg-dëgg doo wax loo xam ne tegoo ci sa bët mm-hmm. ñooñu dañuy gëm gëm lu yàlla bu yóbboo ñu génn ci xeet bu ñu bi ñu bokk baaxuñu mm-hmm. hmm? mais làmb bu ñu tooñ corona làmb gi dafa yàqu avant corona mm-hmm. seetlu ngeen ko làmb dafa yàqu avant corona am na promoteur yu bari yoo xam ne dañoo bañ ne dootuñu tëggati làmb hmm? jaxase xuloo bi xeex bi avant corona ku ci wax corona dangay ngay tooñ corona bien avant corona la mhm. waaw. tey lan dara fumiste rambaaj tooñ ku ñu war a tooñ rek làmb dina baaxaati gëmatuma ko amatuma histoire waaw gëmatuma ko de xëy na xëy na yàlla yàlla rek yàlla moo xam ne man amatuma espoir.